Sidi Sam Médina. Pape Jean du conseil municipal En effet, avec les élus euh, de la Médina nous avons ay conseil municipal Baba Thiam yi ñuy Mme Diallo madame le maire. man la Ndeye Seynabou conseillère économique sociale et environnementale nekk euh, membre de l'Alliance pour la république. Nous sommes leen nag délégué de quartier au Médina. kon maa nekk Soumbédioune. waa Médina ñun waa promotionnaire Cheikh Ba. Cheikh Tidiane Ba def lu ñu rafetlu la tey jii mu ñu àndoon grande surprise ñu woo ñu léegi ne lii moo ko jàppalee les élus de la Médina kon nag Cheikh li mu def nii vraiment def la ko pour ñun rek mais pour Médina yëpp la ko defal ndax bu ko neexoon toog bañ ko def ndax li fi nekk ci ay responsable bari nañu mu ñëw defal lu ñu lu mel nii kon jàpp nañu ne lii ndax suñu njaboot lañ koy delloo ndax ñu koy jox mooy ñi nga xam ne. ils sont dans le besoin lañ koy jël delloo leen ko ñun xeexluñu pour suñu bopp ndax fi sant yalla ku ci nek amna ci li nga yëngatu ku ci nek amna ci li nga japp mais ñun ku ñuy xéxal moy pour la population médinoise Cheikh nak limu def ni on prend acte ñun les élus de la Médina on prend acte à ça parce que li acte bu rafet la. ana dañuy euh, sant yalla bu baax di remercier bu baax euh, le DG Cheikh Ba ci geste bu noble bi dafa noble nak parce que lii dafay wone que ne. Eh, ñun ñëpp eh, benn lañu. te dañu war a nekk benn. ba noppi eh, taxaw pour Médina parce que lii yëpp mi ngi jëm ci population Médina yi moom nag amu ci xaj ak seen mënoon ne ne da koy jox ay nitam parce que xaj na ci ñoom mais comme gis na kenn ñun ñëpp dañuy yëngu ci politique di jàppale président Macky mu ñëw di jàppale képp kuy jàppale président Macky donc loolu nag c'est très noble. Euh, parce que politique dañ ko xamé ci individualisme ci égoïsme ak ci défanté mais mom mi ngi wane que ne newul ci yooyu donc euh, man ngi ko ciy remercier bu baax diko wax né que ni dal ñun mom lañu gëm c'est des valeurs la Médina des valeurs mi ngi fi euh, ñu yooyu yooyu la ñu xam xamuñu defante donc nañ ci and ñun ñëpp joxanté loxo liggéey pour Médina. non geste bu noble la c'est pas la première fois mu def li c'est pas la première fois ni la deuxième fois mu koy def sa yu koor joté wax sa deug yalla dana jël limuy jox ñep fekk sima ba sama kër lima ci gëna neex ba sama kër jox mako ci sutura wa CATB ni ma gisee lépp laa gisé ndax sha allah mi ngi jappalé mi ngi mi ngi liggéey mi ngi wone ay gestes mi ngi def vraiment lu mu am mi ngi koy bokk ak nit ñi parce que yalla dafa bëgg tamit deug rek la yalla bëgg donc CATB man duma membre CATB mais Cheikh en dehors de la politique c'est mon frère c'est mon petit frère donc buy def ay gestes yi naaj di ko def ci Médina bi di jàppale ñëpp faw nag nit ki nga wax ko donc loolu laa xam ci moom muy nit bu baax wax sa dëgg yàlla boole nag li muy joxe tamit bu jox ñu sunu cër loolu lu ma lu ma lu ma émotion boobu laay am ci moom à chaque fois ndax ku ci nekk rek bu ñu sañoon sunu populi sunu commune mooy gën ci commune yi mooy gën a développé ci commune yi te naa ne yéen ñëpp ci loolu ngeen yëngu ñaan yàlla rek li nga xam ne moo dugg ci réew mi muy mbas mi yàlla nañ ko fi yàlla jëlal dàqal ñu ko tey Medina jëm ca kanam nekk ci ay loxo yu bees ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi nga xamante ne ñu ngi si ginnaaw Cheikh ba ànd ak moom depuis booba ba léegi dégg nga chaque année tamit mu yàgg ñoo taxaw di ñu féete foo xam ne macha allah ku ku ñu fa féete doomer ñi ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm loolu maa ngi ko wax si turu délégué de quartier yëpp waaw waa Médina moom amul segg amul sedd ñun ñëpp lay teral chaque année tabaskeex koriteex lépp ba tey jii si mbas mi nga xamante ne mi ngi ànd ak koor geex kori gi ñu oo ñu di ñu jox teranga yi ñu ngi si sant di gërëm. kontaan si lii daf ko yàgg def ñoo bokkoon classe sixième ba sem deux lu nekk.

ba bëgg ñëw waa Liyane si ñëw dëkk si sax Medina wala bokk ci euh, mouvement bi. waaye li ma gën a neex ci mbir yi mooy ñun dañu bokk CATB waaye ñoo mujjee am parce que mi tax ndax Cheikh Ahmed Tidiane ba population Medina moo ko soxal tey biñ leen joxe ba yëf yi des ñu woo ñu ñun xam nga ni lii ku ko xool xam ni tuutaluñ ñu xam ni Medina am nañ ba desal. Medina am nañ ba desal macha allah mën nañ ci dund 6 mois ñu ngi koy ñaanal ci darajey Seydina Mouhamed.